seetaan bikum yéen ndaw Sénégal yi duma leen masa seetaan faa leen di jàppale ba ngeen am liggéey lii bokk na ci kàddu yi njiiti réew mi Macky sàll wax ni ki démb ca ndaje mañ doon xamal ca jam ñaajo jagleel ko xëyu ndaw ñi la Soleil yéene kaay ñu ko exclusif yéene kaay ni Macky fa dalal xelu ndaw ñi ngir li ni mel nag mën a yomb faay tàllal loxo secteur privé bi faa bëgg daal ngeen xam ne man maa ngi seen wet mboolam jafe-jafe bu ngeen nekk ak lu ngir wut ci ay saafara critique yéen a kaay ne Macky kay fa signé chèque bu mag ci xaalis turbine yéen a kaay na ko gannaaw bu mu ko siñe fa koo yëkkati nag ba ndaw ña gis ko waaye nee na fa fas yéen rëq ndigg bu fekkee lim santaane xam na ñoo xam ne defuñ ko wala ñu yëg koo def yow seetal nee na du ma mayee dara xamul perte temps faa bëgg ñu accélérer ko mu gaaw te joxeem xëy mi bu mu am par parloo de lii yéen a kaay ne Macky nag juróom-ñeen fukki junne ak benn ci ay dige moom la def démb ba pare nag yokk ca di tëkku jigéen ñi nag ñoom bokk bokkuñ l' observateur na Macky nam doon waxee fa mel ni rocc na wa de waaw seetal les écoles yéen a kaay na ko ndaw Sénégal yi fukki diiwaan yi ak ñeent mbooleem jafe-jafe yu ndaw yi am ci réew mi la ñuy jooytu fañ koo juri bécc ko ca kanam Macky lépp lañ ko wax le quotidien yéen a kaay na Macky walide na maanaam nangu na pexem daar daar bi mu duppee xëyu ndaw ñi te mooy yéen a kaay na ko Macky kay fa xàll yoonu yokkute ci wàllu xëy yaaw seetal laas yéen a kaay na Macky kay démbu pexe yam nas juróom-ñeenti poñ nag mooy la ca gën a am solo ca ndaje ma bokk na ca juróom benn fukki junne ak juróom xëyu ndaw ñi danañ leen jël weer wii ak yeneen source ay yéen kaay ne hëy faa leen di dëgg gis ngeen démbu ndaje mee makki xam nga lu mu fa nekkee danañ génnee ay milliards ak di wax wax ju neex ndaw ña lii da la fa makki nekkee jàppal bokk na ca baat yam leen doon wax nen leen man ak ñi ma àndal état duñ leen mas a seetaan ak lu mën a xew xam naa li leen naqari xam naa seen jafe-jafe waaye bu leen dara métti danaa ko saafara ndax man ndaw laa woon comme yéen yéene kaay bi ne mel ni daal makki fa doon nax ndaw ña gëmul sax li mu doon wax yow seetal si jamono ji muy wax loolu ndaw ñi ñi di leen raaya ka neexal toj seen bopp bi naan yuur gi fële na bëgg tëgg mboot ndax moom Macky këru liggéeyukaay yu bëri Sénégal ay société ay agence au lieu mu jël ndaw ñi am xam-xam xarañ mën koo yor déedéet ay paa yu màgget ak ay maire yu kotootoot ñii àllaa traité nañ te ba léegi ma leen fa bàyyi jàpp leen benn Ageroute RTS Aprosi Petrosen Holding Sodifitex IPRES ak yeneen yu du xaaj jeex lu tax jëlu ndaw ñi ba tax yéen a kaay bi na ko Macky daal yaay champion turbine yéen a kaay na ko Bougane Gueye lay dajee ak ndaw ñi direct news jox kàddu ki xam màcc ci wàllu koom Ibrahima Sall jàpp mooy gis nga politique ndaw ñii taxawaalu gi nekkee lu ko fiy jëlee nekkut ay dajaloo rek di tuddi milliards mais ni ñuy gént déedéet secteur informel bi foofu moo mën a joxe xëy xaali xuja jaw xam-xam màcc ci dundinu doomu aadama ci turbine yéen kaay na makki kay neexut ba neexul waaye defati na erreur de Mimi Touré moom it ma ngay joxe xalaatam ci niñ mën a àndee xëyu ndaw ñi ci direct news si du quotidien ne man faa seetlu démb na makki waxam ja fa génnee carotte génnee aw xet wax su populi na ko carotte ba xam nga fa neex ndaw ña la ko jox maanaam di wax luñ bëgg a dégg rek lu leen waaye xet wa nag xam nga kum ko génneel Ousmane Sonko déet Sonko démb tuuti konoon doon makki ko fa dugg ba taxaw ca bopp ba ah, yaw seeta nee na ko waa bitim réew di la may doole di la jàppale warta tax nga bëgg def ci réew mi maa tey lu la neex def waaye faa la bëgg xamal ne gis nga réew mi kenn mënut koo yàq te képp ku njortu ne état bi fa faible maanaam yànq yoxam néew doole képp ku njortu loolu yaa ngi ci erreur de li fi xamoon nag temps yee ba réew mu yëngu fitna ji jóg dootul fi xamaat de baax na su fekkonte ne Sénégal du réewu démocratie konoon li fi dee ñu ngi wax fukki nit ak nàngam dana ko ëpp tax enquête yéen a kaay na Macky nag démb mer na de ci les échos yéen a kaay nee na fekkee fa gëm ne démocratie xam na waaye tamit loo gis xam na fu mu war waaye far force fra force doole mbaam lu ma neex def te man Macky musumaa xalaat ne ci réew mu normal nit dana dem di song dal waaye ay sandarme tribunal di lakk ay këri jàmbur ci maali forat mais loolu intaha c'est fini jeex na de kàddoom yaa ci exclusif yéen a kaay yéen kaay bi di Sud Quotidien ne am na leneen loo war a de sa parti bële APR ndakaaru rayante responsable yi Mame Mbaye dugg na attaqué Diouf Sarr exclusif yéene kaay na ko am na leneen lu Macky war a régler ci partem bi jàngalekatu APR ya fañ doon amal AG yëf ya mujj yàqu ñu nekk fa ñoom responsable ya dikk taay saaga ndey baay yu ñaaw lu rafetu ci ay jàngalekat leneen lu rafetut mooy juróom-ñeenti milliards yu bokkoon ci xaalisu corona bi enquête yéene kaay ne lëndëm na de am na lu ca leeru de leneen lu leerut mooy xaalis dawalkatu Jakarta yu Kaolack ndangaan ba tax démb gouverneuru Kaolack wax na président Macky Sall na ko ba léegi jotaguñ xaalis bi kenn joxuñu benn dërëm buñ jox jakarta maan yi njiiti réew mi Macky ne ana Mansour Faye kon lu ji njaaga yaay njaag de joxal gaa yi seen xaalis waay leer leneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne imaam Aliou Ndaw mu Kawlax nee na fa jommi fa jaaxle xam mbette lool bi mu déggee ne ëtt attekaay ba fa ko bëgg a yóbbuwaat xatte koog déglu koog lu ma la mënta wax fa jàpp na sax yëfi daal ay wax la rek mi ngi xaar nag avocat mi dëggalal ko xibaar bi kàddoom yaa ngi ci l'observateur réew mi yéene kaay di ñu xamal na ab sapeur pompier fañ koo teg loxo fekk mu yore yàmbaa aay l'évidence yéene kaay na ko xaaral ma wax la bu ko gën a garaaw diwaanu Vélingara borom dëkk saare màlli fañ ko fekkee ca këram benn kilo borom dëkk de buy jaay drogue ndaw dëkk bu nar a bëri ay mandikat ah ka ko war a aaye moo koy jaay ñaar ñu mandi nag ba doon xeex rayante ca ndakaaru njaay la xamee les écoles yéen a kaay ñu ko xamal bu seetal Souleymane ñu gën koo xam ci Père Jean mook beneen moromam ñoo mandi bay gayi gayee ko bajji bajji ca Dakar centre léegi Souleymane mu ne moromu mandikatam bi fa doon jéem a sàcc reeram mu mujj rey ko ba mu faatu ñàkk ba kanam Allah waa ma ne sapeur pompier jàppee ko yàmba boroom dëkk ñu fekkee ko moom it dorog ñaari mandikat mandi ba kenn ka rey morom ka man xaw ma kan moo tane moromam lii moo tax lislaam ne kullu muskirin xaraamun lépp lu mandi loo tàqale la ak sa sago ab tooxi doona